السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جولي دي نيو لين نيو لين زيارة سين بوك محمد أمين سال نيو جين تي بن فيديو فيديو بو خمني دانيو واخاتي لو خمني كلمة الكفر مانام ساغا بونيو ساغا وات شيخنا أحمد التجاني بو خمني موراو بو مرتلا غي مرتلا غي مي خم موم لا نتي دون تشاو ni moom moo wax Cheikh Ahmad ay wax yu ñaaw te effectivement noonu la waxee Cheikh Ahmad Tidiane ay wax yu ñaaw waaye nag boroom vidéo yi bii ngeen di bëgg a déglu ñu leen di bëgg a tegal moo gën a garaaw lam wax moo gën a garaaw waxu Mor Gueye waaw moo gën a garaaw fuuf nga xam ni kon euh, lu ne mën na am ci àddina bi waaw saaga woon nañu fa Cheikh Ahmad Tidiane mu jóge ci euh, Mourtala Gueye ñii di ko coow lu nekk wax nañ ko ko te loolu lañ ko war nañ ko wax it waaye nag lu waay wax Mourtala Gueye rek téeméeram war na ko wax borom vidéo bi ndax Mourtala Gueye dafa saaga Cheikhna Ahmada Tidiane ci ay mod saaga yu ñaaw wane ni moom mi ngi ko teg ci alquran ak sunna eh, waa ji nag borom vidéo bii ngeen di bëgg dégg nag moom yàlla la saaga yàlla la saaga maanaam teg ko ci ni moom ab taalibi tijaan la kon eh, bu ko defee ngeen déglu ngeen seetaan vidéo bu ko defee li ci des ñu soo ko àggale كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا سبحان الله تي آه، لملني أنا من يتخو كارما دي وخني مانام شيخ تيجان يلا لا آه، شيخ تيجان يلا لا مم ساقو مو جنري لن يكتب تكوتي درشان عمر تيجاني te nag du maandute ñu saaga seen Ahmed Tidiane mu rëy ñu saaga yàlla mu weef ndax bu ngeen seetee xoole liñ waxal liñ waxal yàlla ni Cheikh Tidiane yàlla la ñeme naa ko teg ci audio bi ci groupe bi ñëpp dégg mais lam lañ wax Cheikh Ahmed Tidiane ñemewuma ko teg ci groupe ndax lañ wax Cheikh Ahmed buñ ko tegee ci groupe am na ñoo xam mën nañ cee xëm mais lii ñu waxal yàlla nag ñu Cheikh Tidiane yàlla la nit ñi mën nañ ko métti lu sax noonu mën nañ ko métti noonu sax waaye euh, na muy rëyee wax Cheikh Ahmad wax yu ñaaw na muy rëyee mooy gën a rëy ci ñu ñu baree bare lii nga xam ne si euh, moom lañ moom lañ waxal yàlla jaarale ko Cheikh Ahmad ndax yàlla keroog bañ nee yàlla am na doom ah am na morom de ñi ni yàlla am na doom manam ñom d'accord nañu ña wax loolu dàquñu yàlla indi indiwuñ keneen wutiwuñ it benen yàlla waaye yàlla dafa ni yakadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al ard wa taxiru al jibaalu haddan an daaw lirrahmaani walad yàlla dafa ni xaw tuuti asamaan si xotteeku dal ci kaw nit xaw tuuti suuf si ñëpp dee ndax rek nit ñi yàlla am na doom tey nag dañoo wutal yàlla ndend dañoo wutal yàlla ndend maanaam Cheikh Tidiane yàlla la mooy yàlla yàlla la waaye Cheikh Tidiane yàlla la boobu bàkkaar bokk na ci bàkkaar yi nga xam ne si yàlla wax ni du ko jéggale inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dalik te Cheikh Ahmad Tidiane bokk na ci lim gënoon di moytulu ay taalibe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 jinsi maabud amul laa laa jinsa maabudin illa allah kon bépp taalibi tijaan buy wax laa ilaha illa allah gëm ko ba pare naan cheikh tijaan yàlla la mooy yàlla yàlla la cheikh tijaan yàlla la te loolu ñi ngi koy dégg xëy na daañu ko métti lu nag xaj na ci noppi yi li ci gën a yéeme mooy xaj na ci nopp yi waxu Murtada Gueye ji nag moom xajul ci nopp motax kenn mu ko tek ci ben kenn mu ko dekkal kenn lam bind kenn mu ko won kenn man mu ko woné parce que xamna nit ñi atté duñ ko mais xamna ni ñi andando di fecc di way nan cheikh si yalla la xaj na ci nopp yi waaw cheikh tidiane bu fekkente ni yalla la moom ah, lutax ñu gess bam fot lutax ñu gess bam fot gannaaw bañu ñu takkee maanaam sàng ba mu daj yeew takk dugal ci biir suuf suul maasale kon léegi lu àddina bi lu doxal àddina bi fi ñu toll nii yàlla de kenn defu ko noonu law kaana fihima alihatu illa allah la fasadata yàlla sunu moom tabaraka wa taala beneen yàlla mënut a am Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu de waxul loolu وين لتي جواهر المعاني اك لي ديك اي وخام ييب بن بن واي مسنا نيو نويو شيخنا احمد التجاني با بري دا ديم سجود تي سوف كوم ني ني سجود تي جولي دا فا نويو شيخنا احمد التجاني با بري ديلتو غناو سجود شيخ التجاني نيكو كفرت كفرت قل اشهد ان لا اله الا الله لول ميتي افاد الرحمه دي شيخ التجاني نيكو مانام ويدي نيك يفرغا pour nga dugal ci diine ji fokk nga waxat ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadar rasulullah top waji ba waji ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mu daal di ni nañ beesalaat tak sëyam ay jabaram nañ nañ nañ beesalaat takk gi parce que gennu na ci diine way da ko nuyu rek deltu gannaaw sujoot ci suuf mu ni ko qul kafarta qul ashhadu an la ilaha illa allah kon Cheikh yane dégage na responsabilité te it eh, waxuma ni yàlla Cheikh Tidiane wax na te mi ngi ci té ku téere tariqa bi fees na ko del kasul xijaab bi da nga ko ci fekk da nga koy fekk téere tariqa bi Cheikh eh, lii ma leen wax ci tariqa bi yépp nag ci ay may xaatimul awliya lim am ak li taalibi Tidiane am lu tax tudduma duma tudd sax abay nee na moom du tudd taalibi tijaan yi ak seeni may di tudd saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nee na boo bëggee misaal saxaaba yonente bi ni ñu rayee ni ñu rawee ñeneen ñu dul ñoom saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo bëggoon a ni ñu rawee ñeneen ñu dul ñoom ndax li ñu ànd ak yonente bi sallallahu alayhi boo ko bëggoon a mi ngi mel na piccum përrantaan ni mu mën a rawee ni mu dàq ñi nga xam si noonu lay rawee xorondoom xorondoom buy dëkk dukkat ci suuf ak përëntaan ak gaawaayam nee boo bëggee misaal saxaaba yi ak ñeneen ñu ñoom xam nga ñeneen ñu dul ñoom ak li wax ak taab ak axwaas ak afraad ak awliya yëpp boo dajalee seen martaba teg ko benn say benn saxaaba saxaabi ci saxaaba yonent sallallahu alayhi wasallam nga boole ñun ñëpp seen may ak benn saxaaba cheikh na amad tidiane nee na saxaaba bi rawe na leen ni përrentaan di rawe xorondom kon waxuñu sax abi waxuñu waxuñu nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxuñu yeneen yonent yi ba ci nekk cheikh tidiane yàlla la kooku kooku moom kaburat kalimatan taxruj min afwahihim in yaquluna illa kadiba ki ëppal ak ki manqueel ñoo bokk atte waaye man de buñ ma tegalee borom vidéo bii tegal ma Mourtada Gueye Mourtada Gueye xutbu la xutbu la ci waa ji ki saaga Cheikh na Ahmad Tidiane tey woote nii mi ngi ko teg ci alquran ak sunna bu taree dee am moo ki nga xam si dafa ni moom Cheikh Ahmad Tidiane la gëm ba pare naan Cheikh Tidiane yàlla la kaburat kaburat kalimatan taxruju min afwahim in yaquluna illa kadiba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته